tuuru te ëpp na nag dafa doy jot na nag taskatu xibaar yu miim réew yëpp taxaw tembe ngir sàmm seen dignité ak seen indépendance éditoriale bi nga xamante ne jamono ji ñoo ngi koy salfaañee loolee nag ak lum leen munti jaral war na rek nekk taxawaay bu képp koo xamante ne jàpp na ne jamono ji situation bi nga xamante ne taskatu xibaar yi nag ñoo ngi koy dund ñu jàpp ne nag suñu liberté constitutionnelle yi nga xamante ne moo tënkoon rek suñu métier bi dañ ko caxat caxate lu doy waar nag moo di ñi jàpp ne loolu yépp dara amu ci suñu noon nag nekkul nag Père Noël bu baax humiliation yi bëri woon te ñaaw lool dañ leen doon rek dund te xamuñ ci woon dara tey jile moo ngi rek salfaañe li nga xamante ne moo di suñu espace professionnel te actualité yi ñu génn nag ñenn kott si ñun ñoo nangu ne doy na waar agression yu métti yi yi nga xamante ne groupe de presse Walfadjri moom ay weer a ngi nii mu ngi koy dund mu nees na ko woon rek bañ a dund bu fekkoon ne rek suñu ay cadres syndicaux taxawoon nañ temb ci li ni mel coupure bu talay suñu naataango bi ngir fanweeri fan bi nga xamante ne suñu jëwriñ bi yor wàllum communication moo ko def nag wane na ne rek amuñu benn yoon kattan ngir ñaaw ñaawlu ni mel wala sax ñi def suñu kentu laay kàttan ngir ñëpp itam respecté ko tëj yi nga xamante ne ñoo ngi koy def yenn ci ay taskatu xibaar te lenn waralu ko lu dul suñu tekk tekkaaral jur na fi itam sentiment boo xamante ne war na tax rek ñun ñëpp ñu xoolaat suñuy doxali nag te carte nationale de presse bi itam bi nga xamante ne moo di élément buy tax ñu xàmmee képp ku nekk ci suñuy milieu bi nekk na jumtuwaay boo xamante ne suñuy ay noon yenn saay sax ñi koy jëfandikoo nekkatuñu ci danger niñ ko tàmmee woon di waxee jamono ji nag mel na ni ñoo ngi ci bu baax jamono ji suñu noon noot nañu ñun ñëpp ba mel ni sax tëj nañ ñu ràpp incompétence ak li ñu duppee sournoiserie yi nga xamante ne secteur média yi méngoo nañ réputation ak politiciens yi nga xamante ne ñoom lañ tànn ñi ñi def liggéey bu salte boobee tey ji am nañu nag jumtuwaay ak dooley taxaw temb ngir dakkal tolof tolof yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund di salfaañee suñu liberté de la preste waaye loolu nag dafay laaj rek ñu tabaxaat fi li nga xamante ni moo di force collective ak unitaire bu corporation bi nga xamante ne lii di rayonnement ak autonomie bi nekk na loo xamante ne nañ ko bu baax ngir démocratie wala état de droit mel na ni nag segment presse bi nag dafa mel ni rek naruñ ci indi seen taxawaay ndax ci seen ay position yi nga xamante ne méngoowul ak pouvoir politique yi lee waaye nag war nañ gën a ñoŋal itam li ñu duppee lëkkaloo ci rang yu presse sénégalaise bi jot na nag ñi gën a taxaw tembe ngir fexe ñi respecté suñu droits fondamentaux yi nga xamante ne yoon may nañu ko ñi amal ay mobilisation yu mag yi nga xamante ne nag coordination bu ëmb association de presse bi am na ko weer yi ñu génn leeral rek nag suñu doole néewagul noonu lii di nag engagement organisation action yu dëgër mooy mun a tax rek ñu faagagal suñu noon bi nga xamante ne sonal nañu lool moo tax rek war nañu jaamarloo bu ñu bëggee mucc.